lu yéglekaay bi xëyee tey ma daal di leen koy yëral direct news yi moom Amadou Ba la xëyee tey ndikite ji ci journal bi ne làggum politique bi jaxasoo la def waaye kii di Amadou Ba tekki tekkaaral la def te tekki tekkaaram bi yéeme na assemblée nationale di riir ci mbirum accusation guerre te moom Amadou Ba turam nekk ci ba tey mu ne pat pat rek direct news yi ne Amadou Ba kay rarement lay wax te dafa mel ni looluy feemam la te pourtant li xewoon keroog mercredi sa assemblée nationale ak li coow li bëri yépp Amadou Ba na tekk rek nga ni ma te li si doy waar mooy Amadou Ba bi Karim Meïssa Wade dafay sorti si moom ay àndandooram Benno Bokk Yaakaar Karim la ñuy jàppale pour liñ ko tuumal si mbir mi ba tey Amadou Ba na tekk rek de waa baax na rek yëgle kaay bi ne te pourtant Amadou Ba musul wax ni moom candidat la musul sàkku tamit dafa bëgg a nekk candidat ñoom kay ñoo ko tabb ngir mu mën a nekk candidat Benno Bokk Yaakaar laaj bi kay mooy lu tax palais de la République ubbil Alioune Tine ay buntam tey jii moonte ay jamono de Alioune Tine yàgg ñu waxtaan si lu soxal réew mi waaye tey jii la ko Macky Sall door a soxla mbaadu moom jiiti réew mi Macky Sall dafa bëgg a woolu kii di Alioune ngir ñu waxtaanee mbirum reportu élection yi ah baax na daal waaye ndiki tey jii bureau assemblée nationale ba tey jii la convoqué ab député ya ngir ñu waxtaanee ab benn proposition de loi bi nga xamante ni député yu nekk si parti démocratique bu sénégalais ñoom ñoo ko dugal te dara waralu ko lu dul ñu ngir ñu reporter lii di élection bi ne PDS ak Benno Bokk Yaakaar bu ñu assemblée nationale lii kay mooy laaj bi ñu fas yéene sam journal bi di source a ne ko kay njiitu réew mi Macky Sall ndiki tey jii bu 12h jotee dafa fas yéene wax ak sénégalais yi ndax ginnaaw coowalu reportu élection ya coowalu guerre ci conseil constitutionnel na ko moom njiitu kay wax jot na de wax dafa jot moo taxit ndiki tey si samedi bi bu 12h jotee moom njiitu réew mi Macky Sall dina génn ngir mën a wax lim si xam waaye journal bi di source a ne xanaa discours njiitu réew mi Macky Sall kay warta mën a yees warta mën a romb ñetti ponk yi laa la wax bi si njëkk mooy ngir dëgëral kàddoom moom njiitu réew mën na wax ñetti ay argument yoo xamante dafay tegoo si wàllum droit ak si ay fee te kenn du ko dindi mbaa ñi koy laam-laamee source aanee xanaa kay moom njiitu réew mi Macky Sall dina wax si mbirum accusation sa conseil ngir mën a dalal xel ndax coow li kat yàgg na lool te amaana bu si artuwul lambaay mën na ñaaw moo taxit moom yëgle kaay bi ne xanaa kay dina wax si wàllum dialogue politique inclusive ngir ñu mën a reprendre waat lii di processus électoral bi attan na ko sañ na ko moom njiitu réew mi Macky Sall ay waxtu des ngir ñu door campagne électorale bi parti démocratique bu sénégalais moom kay faaw ñu dàq yile élection si jamono jooju Pastef ne dàq ay élection kay xel mu ne si koo xalaat a ah la tax ñuy dàq ay élection lan moo fi ñor bañ koy màcc laa la wax Mimi Touré ay kàddam si source a mu ngay xamal communauté internationale bi te naan ko faaw nga wax ak njiitu réew mi Macky Sall ndiki tey lu mu guddi guddi faaw nga wax ak moom kàddu Mimi Touré kay mu ngi koy yëkkati ndiki démb ginnaaw am ndajaloo bi nga xamante ni coalition Diomaye ñu ngi ko doon amal Cheikh Tidiane ay kàddoom moom mu ngay ñaan li di force de défense et de sécurité ya ngir ñu am taxawaayu républicain te naan leen nekk leen fi wetu askan wi hey docteur Cheikh Tidiane Dièye mu ngay waxal force de défense et de sécurité yi de di leen baab naan leen jege leen askan wi faaw ngeen nekk républicain bu dee Habib Sy moom la mu wax mooy bu fekkee ni président Macky Sall dafa bëgg a toxal yile élection na xam ne dootul jiite réew mi te bu dee ñoom dañoo am ay problème seen biir loolu ñoom la rek ñu yoon nekk si de nañ ko régler seen biir ndaxte xel moom xalaatul ñuy dàq ay élection te pour lan sax ñuy dàq yile élection yi nga xamante ni campagne ba niki suba la war a door bu minuit jotee léegi ana lan mooy ndey ñu bëgg koo dàq bu dee ñoom dañoo am lu ñu war a régler seen biir nañ ko régler te génnee si élection yi élection yi dina am si nii dina am si naa kaddu yi la Habib si yëkkate niki démb moom tamit waaye bu dee Amadou Ba nekk mandataire bu Bassirou Diomaye Faye di dànkaafu kilifa diina yi ak kilifa aada yi ngir ñu wax si lii ah waa baax na rek li ko mooy mooy yuuxu dina jib fuñ ko foogeewul moom Amadou Ba ñaan kilifa diina yi faaw ngeen yi fi mu nga wax te gis ngeen lii bu ngeen si waxul ah waa baax na Sud Quotidien naan ko la cadence s'accélère yëgle kaay bi di xam ne moom kay démarrage campagne électorale ndiki dimanche bi bu zéro heure jotee te li des élection yi ñaar fukki fan ak benn ngir candidat yi mën a convaincre seen i askan si du quotidien di xam ne moom kay njiiti réew mi Macky Sall ndiki tey ji bu douze heures jotee war na wax ak askan wi si jamono jooju parti démocratique bu sénégalais daal di déposer ab proposition de loi procédure assemblée nationale ndaxte député PDS la ñuy sàkk mooy ñu daal di reporter élection yi nañ ca waxta dee ndax élection mënta am tant que Karim Wade bokk la jongante jotee loolee moo waral ñu daal di dugal ab proposition de loi fële sa diwaanu nationale yëgle kaay bi di le ne ndiki tey ji kay bu fekki waxtu si suba gi jotee fële sa diwaanu assemblée nationale député ya dinañu càmbar lii di proposition de loi waaye Sud Quotidien Sud Quotidien di xam le ne Rose Wardini daal nañ koy placer en garde à vue gannaaw coowal double nationalité bi nga xamante ni moom la ñu wax ne moom la am seetal ma lii seetal ma lii rek l'observateur naan ko Rose Wardini si tamit dafa am double nationalité te pourtant conseil constitutionnel si boppam validé na ba noppi candidature Rose Wardini waa moo doy waar <laughs> l'observateur naan ko waaye jàppal ni di nga ko rëccu de waaw waaw rëccu moom di nga ko def ndax bokkam si élection yii moom Rose Wardini dafa wóoratul ah yow koo xamante ni kat conseil constitutionnel dafa validé sa candidature ñu ne déetawaay ñu dem ba élection yi des ñaar fukki fan ak benn ñu na la féex jàpp na naan ko moom kay njiiti réew mi Macky Sall tey jii nor naa dugg si taarix de l'observateur naan Sall jour d'histoire ndax coow li am si mbirum reporté ay élection si juróom benn weer te si jamono jooju député PDS ya dugal ab proposition de loi sa assemblée nationale ngir dàq yi la élection yooyu la député ndiki tey jii lañ leen convoqué sa assemblée nationale bu 10 heures jotee si jamono jooju coalition Diomaye président moom taxaw temm la ñu def ne kenn du dàq yi l'élection l'observateur ne code d'honneur bu 3 juillet si boppam ba tey kenn xamul lu mu doon laa la wax te candidat spoliés ya ñoom tamit soobu nañ si xeex bi taxaw temm la ñu def na kenn du dàq yi l'élection waa ndax lii yëpp njiiti réew mi Macky Sall dina ko attan ak li si mënti doon bu 12 heures jotee moom njiiti réew mi Macky Sall war a wax ak sénégalais les échos moom nañu loolu koy yàggatul lépp dina leer fii ak 12 heures te moom Macky Sall dalal na démb si palais de la république premier ministre Amadou Ba dalal tamit conseil réew mi Macky Sall yëglekaay bi di xam le ne dalal na tamit AFP bu Moustapha Niass ak parti socialiste nga ni ma kon moom njiiti réew mi dalal na leen ñoom ñëpp ndiki mu nekk ab laaj bi nga xamante ni journalu des moo ko samp si boobu la mbir waaye yëglekaay bi ne Rose Wardini moom mujjee nañ ko placé en garde à vue te luñ koy toppee mooy mbirum faux et usage de faux ak mbirum escroquerie au jugement moom Rose Wardini kay jàpp jàppan ne ndiki déem gars yi bàyyiñ ko mu ñibbi de déedéet gars yi bàyyiñ ko mu ñibbi dañ koo mujjeetee ndax gannaaw bañ ko dégloo daal di seetlu moom Rose Wardini ndekete yoo ñaari national la am wal Walf Quotidien naan ko reporter ay élection kay ay caaxaan la rek waaye ak lu si mënta am moom njiitu réew mi Macky Sall ñu koy xaar fii ak douze heures te tey jii bu dix heures jotee daañu examiner en urgence fële sa assemblée nationale ab proposition de loi ginnaaw ba ko PDS sàkkoo ngir ñu reporter yi l'élection waa PDS moom xanaa dañoo parewul si dem élection naan ko di ngeen dem ay élection de ndax bu dee Cheikh Niass nekk PDG bu groupe Walfadjri ne reporter ay élection kay moo mënul nekk ah Cheikh Niass wax na lam sa xam de nee na nii juridiquement nii moralement xanaa looloo leer. élection kay faaw ñu dem fa. Macky Sall kay tey jii moom lañ fas yéene xaar. a ah, waa baax na ñu xam ba lan lañ nar wax si mbir mi rek ba 12h incha allah. seetal ma lii seetal ma lii rek. ah reporter élection reporter élection ñi ne élection day am ak lu si mënte am. njiitu réew mi Macky bu 12h jotee ñu ngi koy xaar. ñu yéen ak jàmm ba lundi incha allah.